akbar assalaamu aleykum assalaamu aleykum mbokki jullit yi noo ngi doole di nuyoo bu baax di ziyaare di balu ak ñëpp te deen bal ak di jiital kilifa yi nga xam ne mooy kilifa ñëpp mu cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla ko yàlla dëgëral te ko dimbal ci barke maam bi tëddi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bis bi nag di bis bu miim ci ñu dund bàyyi fii ñu du ko def ci at mu ne mu tudd ko bisu Tabaski ci olof muy bis boo xam ni dafay ñëw dolli ak ngëm yàlla wane ni doomu aadama bu nekk ci àdduna wër a nekk ku ne ku niil baa ko xam ni day fital di dem rek waaye war naa teg njëam ci lu leer loo xam ni li muy def yàlla da koy nangu yàlla da koy gërëm ñu koy ñaan gërëmu yàlla muy gërëm loolu muy bis xam ne suñu maam Ibrahima salaam da cee indi lu xam ni ci moom la njëkke ci leen xam ci histoire muy bis bu yéeme di bis bu dëgër ci diine lu muy nekk nekk sunna lu dëgër la ndax mel na ni boobaag léegi noonu koy màggal te yàlla mi ci def sutura ak tawféex kon yàlla na yàlla may nu nu fekk ay déwén yu bëri te mu ànd ak jàmm ànd ak topp ndigal yàlla yi ak ngërëmam ci barke Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy bis boo xam ne bu ëgsee lu jëpp luñ ciy def ginnaaw bi ñu defaree gàtt yi ba noppi. mooy nu fàttalante nu xam ni dafa am lu an ci àddina te li jiitu mooy nu gëm yàlla gëmeen wu xam ni amul lenn lu ko mën a wuutu ci suñ jëmm yi te mel na ni ku tedd ki mu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lim wax ci Tabaski lim ci bind ak lim ci leeral ak lim ci fàttali mel na ni lu bëri la lu yaatu loo xam ne xajul ci dund waaye buñ ci jukkee tuuti rek mu doy ndax tolluwaay jamono ak xataay bi ak ñi nga xam ne dañoo xaw dëkk fu sori li jiitu rek mooy nu xam ni suñu boroom bindul doomu aadama ci àdduna ngir bàyyi ko fi rekk muy lekk ka naan ak tëdd déedéet waaye da ko bind ngir mu dundal suuf si yaatal ko ngir ñeneen mën ci dund ndax ñëpp gëm na ni suñ boroom ñëpp feen ko fekk te ñëpp feen koy bàyyi loolu léegi ñëpp loolu ñëpp leer na ñëpp ki gëm yàlla ak gëmul yàlla leer na ko sëriñ bi tamit ñu ci bind ci wàllu wàllu googu bëri na lool ak lu nit jàngadi jàngadi ak lu mu ñàkk xam ak lu mu ñàkk ñàkk yëg war naa xam ni yàlla kenn la te du am ñaar suñu borom moom nag moo santaane nuy def bis bii ngir sunu tawxiid sunu ngëm yàlla sunu jaamu yàlla gën dëgër mu mel ne ne jamono jii ñëpp maase nañ xam ni am na ak wàññiku gu rëy ci jaamu yàlla gu am ci àddina bi te loolu lépp xëy na pare seetaane mi ngi ci biir waaye nag li suñu borom waxoon ni lépp yow doomu aadama loo dal yaa ko teg sa bopp ndax li la gën a àjjana sa loxo la jaare ginnaaw pexem noonu kon ni fàttali tuuti rek ci njëgaane sëriñ bi nga xam ni dafa waxoon ni yow sama mbokk jàppal ni dund gii de lu gàtt la lool kon na nga bàyyi xel ne bisa nga ñëw nga faatu loolu li ñu ci dégg mooy nit ku ne mën ngaa gëstu ba xam bis ba nga juddu muy bis sàngam ci waxtu sàngam waaye waxtu bi koy faatu ñu néew la ko yàlla xamal kon moo da Sëñ Tuubaa ni fa raaxibil wafaat na nga fooglanteeg dee googu fokk mu ñëw te buy ñëw doo tàggu lépp loo xam ni da ko bëgg di ko def na ci góor góorlu njëkk faatu di am ndax faatu bu amee kat lenn looy defati amatul lu dul lu lay àggaleel na nga mébét ndax kat gudd mébét day yóbbee aji topp yàlla ji ci mu lu ñaaw wala lu xamut wala ëppal te loolu mel na ni jamono jii ñëpp dañ cee teg seen i bët ñu xam ne ay gàllankoor loo xam ne ñun nit ñi doo ko war a safara sañu kon na ngeen sax ci rëbb ak njub ak topp yàlla bu wóor ci dëddu ak topp ndigalam yi ak doylu ci fànn bu ne te loolu buñ ko waxee ab junjula bu mag a mag bu yaatu bu mag a mag boo xam buñ ko gëstoo dëddu sàmm li nga xam ne mooy sa jikko sàmm sa ngor sàmm sa diine jamono ji ak doylu ñëpp xam na ni kenn ku ne war na ko am ndax képp ko xam ne da ngaa manqué loolu jamono ji jàppal ne yaa ngi ci kàmb goo xam ni génn ca du la yomb lu lul suuf war sa kaw rek te yàlla na yàlla musal mu ni bul sàkku sa borom mi nga xam ne moo def xéewal jox na lay bët jox lay nopp jox la bakkan jox la biir soo lekkee mu reesal ko te kenn du ko yëg ballu tàkk kenn du dégg ne yàlla moomu de ko bàyyi xel di ko fàttaliku waaye di fàttaliku ndigal mi nga xam ni da koo santaane woon. te waxoon na ni faskuruuni askurukum di leen ma yëg di ma fàttaliku may ma dee leen fàttaliku waskuru lii di leen ma sant bu baax te li leen jox ndax jox nañ ay bët ñuy xool jox nañ ay nopp ñuy dégg jox nañ ay xéewal ci àddina ak i njaboot kon nañ koy sant bu baax te topp ndigal yi ngir am ngërëmam jooju mu ni wala taromil bul sàkku àddina mukk ci lulul nga am ragal yàlla gu tedd ndax nit ki kat lu mën a am ak lu mën a xew lu ko suñu borom waxoon waxoon ci sootu xujuraat rek ki gën ci yéen daal mooy gën a yàlla waaye maa gën nit ngir bëri alal amut maa gën nit ngir bëri daraja amut maa nit ngir bëri ak pal amut yooyu yëpp lu teg lu seetaan teg suñu suñu kanam la ba jàpp ne dara la te Serigne Touba mi nga xam ni dëkkam bi moo ko sos ñëpp xam ne dëkk bi su soowul ci ay étage su soowul ci terrasse su soowul ci ay place publique dafa sosoo ci jaamu yàlla gu dëgër ak wéetal gu dëgër ba wax nañ sa ay jamono dafa réer ci Touba ban mbokk yi di ko seet ba gis ko muy fee jumaa ja nekk nu xam ne kon loolu képp kuy dund Touba moo xam nga yëg moo xam yëguloo moo xam nga xam moo xam xamuloo war ngaa bàyyi xel si loolu ni sëriñ bi kat dëkkam bii ba mu koy ñaan sa borom ba borom may ko ko dafa am fu mu ko tegoon kon yow doomu aadama buy dund ci dëkk bi war ngaa yëg cofeel googu war ngaa yëg bëggeel googu ngir sa jaam yàlla mën am ngërëm te yàlla yàlla defal nu ko mu ni kon bul jeng mukk jëm ci ci sa borom jëm fudul sa borom ngir ak xamem wala ragal ndax boo ko defee da alku te jamono ji ñëpp xam na ni waa àddina yi dañ lay ñëw xëpp la wala nu xëpp la te loolu sëñ bi waxoon bu yàgg nii yéen nit ñuy dund bu leen bàyyi xel mukk loolu booy ragal ragal yàlla mi xam mat ragal booy dimbali ko dimbali yàlla mi xam mat dimbali ndax képp koo jàpp ku dul sa borom jàpp ni jàppoo ci dara lu lul ak zéro ni kon lii naa leen ko dénk bu leen bari ay wax bu leen bëri ay nelaw bu leen bëri lekk lu bari bu leen bëri xër ngir dajale àdduna yi bu bu xam ni da nga fiy jugee naa la diw moo lii waaye jox nañ ko ñii te loolu lépp bind la boo xam ne saa su ne mi ngi suñu kanam saa su ne nu koy dundu te mel ni ba tey dañ ci gut rawat nañ jamono bi nga xam ne jamono mbas la boo xoolee nit ñi defee ne daanaka tëlatuñ dara dul àdduna yàlla na yàlla mosul na ci àdduna boobu nga xam ne day lore amul kilifa la suñ bi jaxate waxoon rek ku amul kilifa yomb ba mu kon yàlla yàlla musal nu ñu amee kilifa te topp ci ndigal tey ñaan su borom lii ci àdduna bi muy loo xam ne ñëpp la jaaxal yàlla jëlee ko fi ci kattan sëñ Tuubaa mi nga xam ni bu ko musaan a fekk fii jamono am na ci ay dog ak ñaan te defoon na ko te mel ni loolu ñëpp xam na ko ñu ñaanal suñu mbokk mi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada di suñu lépp ñu ñaanal ko yàlla defal kattan ci barke sëñ Tuubaa ak ndimbalam te nu bàyyi xel ñi nga xam ne ci jafe-jafe ak ñi si hôpital yi ak ñi nga xam ne yàlla dogal na seen loxo jur suñu ginnaaw ñoo xam ne adduna bi loo fa yor lu mu bëri bëri boo ko jëmul day dem te bu demee nag da koy dabe képp waaye moom du ñu dabaat la sëñ Saliou daana ko firi ci ñetti mbir dafa am waa joo daa ñëw dama wut ñetti xarit xarit bu njëkk bi mu ko ñu ne ñu ko dama faat doomu aadama nit mu ko ah loolu day man de ku faat nit du ma ànd ak moom daal daw bàyyi ko fa mu ñëw si ko ñaar rek ni ko dama mu ko ah kon de xanaa maa yoon dëkk bi ndax fu la gis gis day jàpp ni kat day jàpp ni nangam nangam wala sa ko naa la bi ba nga mën a raw ñu ko ñetteel gi ni ko kon dey dama ak yow ba kara nu xam fu muy dee fekk kon ñetti yëpp firi ko bu njëkkee mu ne na nga xam ni àdduna mii lum la bëgg-bëgg lum la teral teral bis boobu bàyyi ko ci kaw suuf dañ lay wàqi sul la ndax danaan la yow ma ànd ak yan yow yow ma xam taxul fii la taxoon fii lay bàyyi bu ñaareel li mooy say bokk ak ñi ngay jaxasoo ci àdduna ne lu bëgg-bëgg ak loo fonk-fonk saa bu faatu amee dañ la yóbbu ba ci sëg ya ci ginnaaw kër ya suul la fa wàññi ko ñëw naan ak diw ak a baaxoon wala ak a nangamoon kese nga ci am ku ñetteel mooy jëf ju baax ne loo ci def lum néew néew lum bëri bëri foo nekk ci àdduna ak yoma xeam mu fekk la fa kon yàlla yàlla dimbali nu nu am jëf ju baax te di ko sellal ngi jëmi sëriñ bi bañ cee boole lenn lenn lenn tappale te ndimbali kilifa yi dëkk bii ci koñ bu nekk ku fa nekk mu xam ni daa war a jaamu yàlla da ko war a topp lépp lu yàlla ter da ko war a araamal loolu mooy ndénkaan li nga xam sëñ bi daana ko fàttalee saa su ne bëri na lool waaye waxtu bu mayewul lépp am nuy sant na kilifa yëpp ñi taxoo jàkk jeeg sëriñ beeg ñëpp ñoo noo leen di ziar di sant di ñaan suñu borom gudd fan yokk seen i wërsëg ci bàkk sëñ yi ban maa